Seydina maa ngi lay fay. Eh, gis nga ak sa buur bi Abdou Khoudous. bon euh, finalement egguma tribunal parce que dama doon dem euh, bi may dem nag ci yoon bi ñëw ba fi nga xamante ni moo di côté école normal mm-hmm. ci laa gis école normal ci laa gis euh, ñi nga xamante ni moo di ay takk-takk ci lu jëm ci route de Wakam bi. Mm-hmm. mooy tali ba jóge université dem route de Wakam. Mm-hmm. fii nag ndaw yi mujj nañoo taal li nga xamante ni moo di Auchan Mermoz bi. fii xal baa ngi ni jàppet ndax te même force de l'ordre yi mooy gendarme yi ñëw nañ fa ci côté boobu bëgg ko fay. Mhm. mais amuñu si benn pexe ndax euh, saxaar bi. Oh, dagg na ñu ñu ñu jëm ñu jëm ko amaat ah. ñu jëm ko amaat parce que ñu ngi xamal ne fële nga xam ne moo de ci Auchan bu nekkee fële ci Mermoz fu mu toll nii xale yi taal nañ ko. Euh, taal nañ ko policiers yi ñëw nañu dàq leen ñu ngi def seen kéemtalaay kattan mbir yëpp ko fay. waaye mbir yi daf leen ëppi dafa leen ëpp loxo euh, kon ñu jéem a am ki nga xam ne nii moom moo di euh, Moussa Sène su ko defee mu décrire la ñu ambiance bi nga xam ne nii euh, moom moo xew jamono ji foofee ca Mermoz ndaxte daal mu mel ne que fu mu toll daal ndakaaru moom commencé naa yëngu ndakaaru commencé naa commencé naa yëngu fu nekk booy yaa nga fa di boyal ay pneu mu nekk nag loo xam ne nii lu lu lu lu doy waar la loolu daañu ciy dellusiwaat kon ci kanam tuuti.